Ousmane mmh. Sonko a dit que, que dans le que Sénégal am na dans son marché intérieur mën na mobiliser des recettes en interne euh, mën nañu yóbbu budget bi ci quinze mille milliards. mais euh, man ma c'est-à-dire ci suñuy. waaw léegi déglu lu ma la wax rek. de mobilisation interne bu yegsee rek dans les trois mois da koy def. non non non non non. kañ la koy def non non non non non non xam nga boo waxee loolu. ensuite nga boole ci di di ŋàññi Macky Sall ci leb bi yéen ñëpp ngeen ŋàññi ko ci leb bi comment expliquer qu'un régime en deux mois leb mille cinquante milliards loolu laa la expliqué voilà c'est ça la question cest à pour yow le fait que dans cette période non rek en cette période là ñu leb loolu c'est grave c'est pas bon parce que wax nañu ne leb bi dafa ëpp les quinze et quelques mille milliards qu'on les treize plus huit mille neuf cent milliards yu ñuy leb fii Sénégal sur toutes ces années ba passé plafond yi hmm? c'est une mauvaise chose c'est pas à comparer avec un endettement ponctuel pour une période de transition pour un régime qui vient d'arriver régime bu doog a. ngay doog a ñëw Simla Sall nga leb. waaw donc Simla Sall dinaa la expliquer. nu mu boo defee dix ans ñaata ngay leb. voilà xam nga nag loolu mooy tu ne changes pas. s'il reste dans le même système. Macky Sall bi muy doog a ñëw en 2012 80 milliards aide budgétaire la dem wuti France. waaw mais li mu fa fekk gis nga nu mu ko def benn kenn mosu wax ne du leb potentialité yi ñu am pour les recettes internes mun nañ ko multiplier et ça va être fait ça fait avec les réformes et tout ça se fera pas dans les trois mois non non non fi mu toll nii xam nga fu ñu toll si jagal bi lañu toll il faut réparer. donc il faut s'endetter encore. il faut non non pas encore donc l'endettement n'est plus un problème. non non non l'endettement est un problème parce que suñu structure économie suñu structure économie da nga war a jël source de financement yu ute da ngay jël sa recette interne mu jël pour pourcentage nga ne sama recette interne dinaa dem ba trente cinq pour cent wala quarante pour cent trente six nga ne PPP yi nga nantir ci say ressources naturelles mën nga dem ba trente pour cent wala vingt cinq nga ne endettement public du ma passé trente trente cinq pour nga ne investissement direct étranger yi nga def environnement des affaires boo xam ne nit ñi dañuy ñëw nga ne dinaa def noonu nga koy répartir nga ne man pour ma am émergence il me faut trente mille milliards sur les cinq ans ñeneen ils avaient dit leur PAP 3 ils avaient milliards nga seet seen projet yi ñu am actuellement man bi ma defee calcul bi xool projet yi ñu am actuellement valeur huit mille cinq cent milliards laa ci jël li ci des c'est des financements à rechercher ils l'ont même pas lu ci bare amuñu ko soo jëlee huit mille cinq cent milliards prévoir sa recette yi ma la wax yëpp yow xam nga ne dans les trois ans di nga dugal trente mille milliards wala dans les cinq ans di nga dugal trente mille milliards ci économie bi xam nga fi nga koy jëlee bett dina ci bokk kenn mosul wax du endetté wu loolu contexte boobu c'est ton projet que tu dois présenter qu'ils vont présenter après mais tu viens tu trouves une situation tu viens le pouvoir nga ñëw fekk le service financier de la dette rek c'est 48 milliards par mois tu possibilité deux possibilités tu dis au bailleur moi je viens d'arriver mënuma fay 48 milliards par mois si baal leen ma ko ba 2025 ñu renégocier ko si tu mets 48 milliards sur les 9 mois tu as presque 300 et quelques tu peux même ne pas prendre ce qu'ils t'ont proposé mais ba tey dette la mais tu n'enrichis pas ton portefeuille nga ñëw ne léegi les recettes on a traversé de situations yoo xam ne yi malgré ça tu as le les nga ñëw fekk fa xaalis bu ñu togoon boo xam ne dafa bloqué tu as des salaires mensuels nga dem sur le marché obligataire on est allé plusieurs fois sur le marché obligataire au total on a récupéré à près cent cinquante milliards sur le marché obligataire moo tax coow jiwul ñi doon yaakaar yépp kenn du fay salaire yi on l'a payé donc boo ñëwee foofu loo fa fekk da nga koy jël pour rassurer nga war a def baisse des prix nga war a jël ay mesures concrètes campagne agricole bi gis nga ko gis nga xaalis bi ñu ci def fan la jóge ñu war ko def toutes les mesures sociales là yi ñu def fan la xaalis bi jóge kon xaalis bi dañ ko jël rek sànni ko par la fenêtre ñun bu ñu defee pour campagne bi dox ñu rembourser ay dettes yoo xam ne ñu ko fi fekk ñii ñi di daw suba ak ngoon nga ñëw jël décision rek si ko commencé dugal xaalis xaalis boobu fan lañ ko dugal kon xaalis boobu dañ ko ñëwoon rek fekk ko. ñu ñu ñu ji ko rek nga ñëw witti ko li ñu fi fekk ngay jël c'est une situation boo xam ne bi c'est une situation transitoire nga jubbanti ko régler problème mu nit ñi taxawal sa projet créer sa schéma de financement développer réew mi yéen bu fekkee da ngeen bëgg développer réew mi képp ku jël ci yoon est-ce que nit ñi dañuy dañuy détourner xaalis bi est que dañu yàq xaalis bi est-ce que da nga gis ñu def ñu def gabegie yi est-ce que da gis ñu def ay dépenses yoo xam ne yi dafa yàq kuy defar kay yaa xëy da nga koy encouragé ne ko waa góor. mais mais waa góor sax yéenewu sax wax pouvoir bi waa góor. Boubacar ñun on est pas là pour wax waa góor. mais si si <laughs> mais il faut dire là. là il faut il nga accepter ku jël xaalis. dugal ko ci paysans yi. nga ne nga ne waru ko salaire yi nga fay régulièrement en